li ci yéen i kaay Abdoulaye Bob euh, dal leen ak i kaay yu bëri desandi ci euh, coowal troisième bu njiit mi Macky dina ko amalam déet euh, bokk ci lu ñuy rumbandaat ak di ko di ko lam-lamee ci APR yéen i kaay bi taxaw ci appaire moomule am na ñuy xalal yoon njiit réew mi Macky Sall ngir mu mun a doonaat président ci élection présidentielle yu 2024 yéen i kaay bi ko ci xalal yoon bokk na ci Abdoulaye Seydou Sow mi xam le ne jaadu na njiit réew Macky Sall laajaat réew mi ku mel ni Mansour Faye mi fàttali askan wi ne ci élection présidentielle yu 2019 euh, gannaaw bu mu falwaate ci bopp réew mi moom njiit réew mi Macky Sall mu ngi soog a am mandat juróomi at desal na ko beneen juróomeelu at euh, ki nga xamante ne mooy euh, njiital directeur de l'emploi Fatou Fall dëggal na ko ci biir yéen ak bi di Walf Quotidien Walf Quotidien ne mel na ni waa APR ci jamono ji euh, ñangay bàkk di kañ jiitu réew mi Macky Sall ngir mu amal troisième mandat yéen ak bi di euh, bés bi jour ne la nar a am ci assemblée nationale ñu ngi tàmbale di seddo poste ya euh, vice président ba Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci xaar mu am ñeenti toogu yeewi am ca ñeenti toogu bokk na ci secrétaire élu la Benno am ci ñett yeewi am ci ñett questeur ci assemblée Benno am ci benn yeewi am ci benn commission permanente yeeg eh, bennoo am ci juróom-ñaar yeeweeg wàllu am ci eh, juróom-ñaar eh, bu ñu sukkandikoo ci yéen a di bés jour yéen a di le vrai journal ne assemblée googe ki ko yeyoo war a jiite war ko jiite ci jamono ji di Aminata Touré Mimi Touré la ñu gis ne moo war a jiite assemblée nationale ci fan yi ñu jëm ndax dañ ko taxawal yéen a di Dakar Times taxaw ci pencum ndaw réew mi ñu ngi koy nas ci jamono ji waaye nag buñ ci noppee ci assemblée nationale njiitu réew mi bi Macky Sall bëgg naa taxawal euh, gouvernement bu bees li waral sax liggéey bi yéex euh, bokk na ci lu ñu duppee enquête de moralité fexe ba kenn ña euh, ñu war a fal ministre gëstu ñu amal ci kenn ku ne doon na sax lu xajamal liggéey bi booba léegi munta sorti yéen cabinet assemblée nationale googu sax mun nañoo séntu maire bu Guédiawaye Ahmed dara bokk na ci ne candidat la doon ngir jiite assemblée nationale ëllëg yéen cabinet candidature am googu bu ñu deful ndànk mun naa xajamal opposition bi ndax boo xoolee ci kujjeeg politique bi Birame Souleye Diop ak euh, ba ci Abass Fall ba ci Barthélémy Diaz kenn ku ne ci ñoom bëgg naa doon président euh, bu assemblée nationale yéen kaabi di critique ak ñun ci Barthélémy Diaz ana fan lay mujjee wala boog ana lay tukkee ci euh, dogalu atte ganara tukkee ci procès en appel bu Barthélémy Diaz gana fatub ndem si yàlla Ndiaga Diouf procès en appel googe verdict ba ñu ngi koy xaar ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre 2022 Abdoulaye Wade mu ngi xaar doom ja Karim Wade mu ci ci mim réew ngir waajal élection présidentielle yu 2024 yéen a kaabi di turbine Karim bu bëggee daanaka jëmmalaat boppam ci réew mi na def ni Idrissa Seck ak Pape Diop yéen a kaabi xëy jox kaddu ambassadeur bu mu Sénégal ci Arabie Saoudite xam na ne Qatar pare woon nañu ngir itamit delloo si Karim Wade fii ci Sénégal waaye nag mel na ni njiitu réew Macky Sall moo ca àndagul yéen a kaabi di euh, turbine xëy duñu ko xibaar l'évidence ne dina jafe lool retrouvaille libéral maanaam njabootu libéral joxante loxo diggante Wade ak Macky ndax PDS la muy dund ci jamono ji ña fay bawoo di ba PDS nga takku na lool ku demee ni ah, Serigne Bara Dolly Mbacké ma fa newoon gedd na PDS ah, Toussaint Manga yi tamit gedd PDS l'évidence ne xel mun naa njortu ne xëy na njiitu réew Macky Sall moo ne ci eh, ginnaaw jafe-jafe PDS eh, bi ko dal ci jamono ji ah, mooy fexe daal ba nit ñi eh, du mooy Abdoulaye Wade wut si waa APR yéen a kii di 24 heures France xëy waxtaan ak Jean-Christophe Ruffin mi fi doonoon ambassadeur bu réewum euh, Sénégal ak Gambie àdduna ci euh, li fi jotoon a xew ci fitna ci euh, weeru mars 2021 tukkee woon ci dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko Jean-Christophe Ruffin gis ne Sénégal rawatina njiitu réew Macky Sall war na cee jàngee lu bëree bëri ndax bokk na ci Ousmane Sonko ak mbooloo ga dar ak ndaw ñi ko dar saay su ne yéen cabinet ba tax na dina jafe lool nguuru Macky Sall ak mbaa Macky Sall neenal Ousmane Sonko maanaam faxas ko ci géew politique Sénégal yéen cabinet di A ne Ousmane génnagul ci coowal digganteem ak Adji Sarr bu ñu sukkandikoo ci Gabriel kan bokk ci société civile xam le ne Adji Sarr dañ ko bàyyeeg jafe-jafe wéet na lool ci ko taxawu nguru ko Sénégal def ci yàcca yàccaaral doon lu métti lool Gabriel Kane leneen la mu métti lu ne jot na ko joytu ci eh, kanamu ministre gi yor wàllu njaboot gi jigéen ñi waaye def ko ca sofantal ne dossier googe dugg ca eh, bokk na ci Gabriel Kane ne dañu dugg ci dossier Ousmane Sonko ko Adji Sarr eh, ci lu yàggatul dina taxaw ngir yoon mun a def liggéeyam ci googu lépp dossier yéen a essence xëy dugg ca Touba quartier yu bari ña nga ca biir ndox ma mbënd ma fa am ah, nguurug Sénégal mu ngay def kémta lay kàttanam ngir fexe ba génne ndox ma ca biir kër ya ndox ma mu mun a fen magal gi ba tax na jumtukaay yu takko takku moom la nguur gi ca Touba yéene kabi di le quotidien bu yabo ku yabo sentu yeneen taw yu bees yoo xamante ne dina bari lool ndox mu bëree bari la ñuy sentu ci Sénégal yéene kabi ne bu ñu deful ndànk sax fleuve Sénégal ak fleuve Gambie ah, mun nañoo fees del ba bal loolee mun naa yàq yàq lu bari ci dëkkuwaayu askan wi rawatina gàncax gi ba ci tool yi yéene ci weeru ut gi eh, ku yabbo sentu ci njeextalu ut eh, taw bu bëree bari ba ci weeru septembre yéen kaabi di Le Quotidien moo ñu ko yëggee l'info xëy ñu yëggee la xew ca Casamance euh, kuréel ga boot way fippu ya xar na ñaar gannaaw déggoo gañu ne am na ci diggante nguurug Sénégal ak MFDC ca Guinée Bissau euh, déggoo googee nag kayit ga moom la bureau bu euh, Manga Kuro xotti taret ne ànduñ ca ndax dañoo def loo César Atoute Badiate la mu yëgut ndax dafa feebar am feebaru gët ba tax na signé na loo xamante ne gisu ko bokk na ci google bureau dankafu nguurug Sénégal ne jàmm kenn du ko daba daaxe nañ ko waxtaane ba juboo l'info euh, moo ñu ko yëggee Sud Quotidien mu ngi ñu euh, euh, am na yeneen yoo xamante ne ñu ngi ci jafe-jafe di usines yi yëngu ci wàllu liggéeyum ciment Dangote lim bu takku ci personnel am ay liggéeykat moom la yóbbu ci congé ndax am jafe-jafe su ko simap cimenterie di Sahel ñu ci guddi gu setagul ndax liggéey ba doxatul yéene kabi di Le Soleil ne njaayu mangu bi am na lu ko bëgg xajamal bokk na ci weñ googee nga xamante moo dugg ci biir mangu bi yàq ko yàqet ba a ay mango ca bitim réew tambale naa sooxe lool direct news xëy duñu dégtal Mamadou Ly mi ñu sargal nañ ko jaajëfal nañ ko presse bu Sénégal delloo ko njukkal na mu taxawee bokk na ci ma revue de presse ga mu jot a jëmal boobu léegi yéen cabinet Mamadou Ly jot naa rafetlu tamit ni ko presse bu Sénégal taxawoo mu ngi ci yéen cabinet direct news yéen cabinet stade mu ngi ñu dégtal Sadio Mané taxawaayam ca Bayern équipe bu mu ganee si bees balaa def dara yëglu wane xadaram ak mëninam dugal bi mun a imposé wu yéen cabinet stade ne di ñu xamal ne Sadio Mané ci jamono ji eh, kàngam la ci wàllu eh, football foofee ca Bayern yéen bi di bés bi le jour mu ngi ñu dégtal ne ci bés yi ñu toll eh, togg tamit yaasa cu ak yeneen ak yeneen dina jafe lool ci suñu mbokk alpulaar yeeg joolaa yi ndax soble c'est cher lool ci waxtu gi ñu toll yem ak fu ñu jeexale xëtu yéen kaay tënk la woon ci baatu askan wi incha allah daan ko jukkil ca na mu gën a ci xibaaru digg